la banlieue bi feccikat ah, nekkoon mbokkum ndayum Aziz Dabala ak eh, kii nga xamante ne nii moom la ñu ku nekk di laam-laamle naan ci la bokkam bokku ci muy Nabou Leye eh, di rakam muy jee mu baax mi ñu ngi lay nuy bu baax. a ah, maa lay fay ba jan jaxate maa lay nuy di la fay di santaar yàlla bu baax a baax rek waaw. jee <laughs> mbir mi bi nga ko yëgee nan la la def. waaw mbir mi ba ma ko yëgee metti na lool ndax man mii sax. wax dëgg yàlla bu ma ko yegee am naa lu ma metti torop torop mu doon ku baax nag koo xam ne ku jullite la waaw koo xam ne nit ñi waa àdduna kenn dootu ko laam-laamate mu doon ku baax ku yëg doomu aadama Aziz boo ko mësaan gis day julli daa du tàdde benn waxtu waaw mu doonu ku yëg nit ñi nag ndax moom day saanam moom du waali bañe kenn ndeysaan mais yéen ñaar liggéey ngeen noo liggéeyu nag waaye xam naa ko nii waaw waaye man musuma liggéeyante ak moom daan d'accord sa relation ak Nabou Leye parce que yaa ngi naan Nabou Leye daan ngeen bokk ay répétition ka caaro yi. boobu waaw ñu ngi doon répété camp ba waaw ñu doon répété camp si ñoom Ibrahima Sarr dañ doon répété waaye fan yooyu moom xaw naa yàgg torop te yàgg diir na lool sax waaw. soo ñu doon wax ci Nabou Leye tey parce que Nabou Leye ñu bari ñu ngi naan doon wax ci Nabou Leye tey loo ñuy wax ci Nabou Leye. ah dëgg yàlla nag. si mën a wax dara. da ah mu si mën a wax dara daal. waaw. mais xam nga ci xam nga xam nga loo xamante ne nii mën nga si mën nga ne Nabou Leye nii la mel nee la mel parce que jot nga ne répété même su dee benn jour répété ngeen. man waaw xam naa ko bu baax a baax ndax man ku baax laa ko xamee daal. mais problème bi moom mënu ma see wax dara lu ñaaw wax dëgg yàlla. d'accord vas-y. waaw parce que yéen dañ leen faral di tuumaal yéen feccikat yi. waaw seen fréquentation baax souvent. ngeen ànd ak ay yoo xamante ne ay def ko ñaaw te bu ñu loolu pour ngeen setal seen dara lan nga si mën a wax non man ba ma gëjee fecc sax xaw naa yàgg lool ndax man ba ma amee boroom kër instant yi yàggul sax ndax man damaa arrêté woon sax fecc bi waaw nit ñi moom seeni wax rek la ñu yor seen wax rek la ñu yor ak dégg naa foog naa rek ngay dégg mais lu ñu lañ lu ñu nit ñi di def jaxran ñoom duñ ko wax nit dangay wax loo xam ne dëgg la ci yow nga wax sa diggante ak yàlla ak sa taraayu bàmmeel mais nit ñi nag du boo leen di topp sa jour rek doo mës a dégg doo jóge ci kaa. lan a dañuy wax di provoquer te xamuñu ñoom lu ñuy wax waaye man li ma la mën a waxal daal moom dëgg yàlla Aziz ku baax la ku gentil la lu tax attention cee taxawal bu tax ne nit ñi am loo xamante ne dafay lus ci biir wala loo xam ne ko dégg non non bëgguma wax ci affaire ba pare yaa ngi wax yi expliquer da kii dafa ne ba xam dafay dégg feccikat yi ñu leen di yàq ne feccikat yi dañuy àndal ñu bon man boog duma àndal ku bon man duma àndal ku bon ndax man ñu baax laa xam ñu baax ñu gentil laa xam waaw xëy na nag ñoom ñoo yor seen wax yooyu di wax rek waaye man ñu baax laa xam mais est-ce que est-ce que mandat dépôt ñaanuñu ko yàlla tey bu si amee comme dafa war a jàkkaarloo procureur mandat dépôt bu si amee est-ce nekk gàcce ci yéen yéen fecckat non man wax dëgg yàlla instant yi lii nii bu ma waxee dara damay fen mais moom danseuse aussi fecckat laa waaye bu ma ci waxee mais tax nga reculer da nga ragal dëkk du ma ragal mais tamit am na yen dugg yo problème jàmbur yoo xam ne du mais na mais seetaan si nga soo ci dugg waaw te boobu léegi yàgg na diir na waaw kay d' accord tant que nit boo ki nga xam ne moom mooy euh, Nabou Leye euh, nga dégg ko ci li nga xamante si ni mooy euh, rey mosoo ko ko foogee mais ko ko déggee nan la la def metti na torop dëgg yàlla metti na metti na torop laa mun a wax daal mhm. metti na torop mhm. waaw Euh, c'est la première fois nga dégg lu mel ni euh, Nabou Guèye ñu ko ciy ah maa ngi soog a dégg daal. Hmm. maa koy soog a dégg. merci beaucoup. dul ñoom ak ñi ko def ak yàlla suñu borom wala ak ak monsieur le procureur ñoom rek ñoo ko mën a wax mais léeg li ci man damay dund rek mais mënu ma la wax ak wax dëgg yàlla ne kii moo. loolu damay joxe exemple damay joxe exemple ma ne réew mi bu leen fàtte ne nit ñi lañoo soxor dañuy gis artiste am buzz. ñu def tout dem ci sëriñ liggéey ko pour fay ko loolu xam naa ci dara mu wér parce que Aziz déggoon nga ko fi muy siiw ay jamono dégg-dégg siiwatul dégg-dégg mu commencé waat tàkkaat gis ko buñ jéemee jéem euh, seen i pexe tuut mën na ñoo ñëw sax yabal nit mu rey loolu mën na nekk exemple laa wax mais mënu ma la wax wax dëgg yàlla nga xamante ne xarit xam nga loolu ñu bëri ñu coow du tuumaal te ku ngay tuumaal amaana xamaloo ko dara man de duma ko def parce que wax dëgg yàlla boo jàngatee nabu diggante moom euh, Aziz fi ñu jaar ba egsi fii jàpp naa ne nabu du def jëf ju mel nii man li ma jàpp boog laa wax xaw ma nga wóoruma ndax moo def wala def mais jàpp naa loolu te gisuma tamit lu ko war a mën a jaral kon nit ñi wax ñëpp ñu ngi tooñ parce que tey bu fekkee ne tey att ci kanam tuuti yoon setal tey nabu yaakaar naa ñi doon wax nabu ñëpp danañ ruus am gàcce kon yaakaar naa ne mieux vaut daal ñu bàyyi lépp ci loxoy yoon procureur bu ko defee bu génnee incha allah rabi dina leeral dëgg gi ñun ñëpp dinañ xam la. alors gis nañu ki nga xamante ni moom ñu bëri ñu ne dafa di ko moom la ñu na wala wala waaw xam nga ba tey loolu nit ñi wax na rumeur moom looy na ñuy wax nee na nangam nangam nangam rumeur la waaye lépp rek xëy na dina leer rek comme ni ma ko rek waaw nit ñi moom ñu ngi wax rek li ñuy wax xamuñ ci dara parce que maa ngi dégg sànq benn waay sax mi ngi koy wax maam ñi ñu war a wax dañoo waxul ñi war a wax rek ñooy nekk di taltali waaw kon jàpp naa ne nan xaar tuuti rek bu ñu xaaree lépp dina leer incha allah. waaw loolu yàlla suñu borom moo ko wax bu ñu rey la bu ñu defoon rek léegi léegi bu baax rey dina wàññeeku bu baax a baax loolu rek la parce que lii nii dafa métti quoi rey nit koo xamante ni yow Aziz amul jabar amul doom waali bu dee waali la xale la vingt trois ans la bàyyi na bàyyi na ay doom nga yóbbu seen bakkan xamoo xamoo woon ñaata doom lan waroon a am seen i doom lan lan waroon def ci àdduna bi ñooñu ñëpp nga faat leen faat bakkan yooyu yëpp loolu la moo tax euh, bakkan kenn amul njëgam kenn amul parce que même yonent bi sallallahu alayhi na jullit nga lor ko nga dem yàq euh, yàq kaaba gi ñu tabax ko nga yàqaat ko ñu tabax ko nga yàqaat ko ñu tabax ko moo gën sax nga lor benn jullit waaw kon waaw non soit faite pour Aziz Dabala rek parce que man déggul ma la xaw ma leen mais xam naa ne daal moom ah euh, yuux dina jig fu ñu ko foogee waaw